Mangi Lendi jotali communiqué numéro 24 bu mercredi 25 mars 2020 bi nga ministère de la santé Momla la Askanwi. askan wi ci 142 tests yi nga xamné def nañ ko positif ci fuk ak Duromika cas ay cas importé lañ mooy cas yi nga xam nit ñi dañ bitim Sénégal ak juróom-ñetti cas yoo suñu service yi ñu ngi leen doon suivre mooy cas contact yi ñu ngi leen suivre donc di leen prélever systématiquement benn malade bi nga ko hospitalisé woon fii ci service maladie infectieuse et tropicale contrôlé nañ ko ñaari yoon mu négatif donc déclaré nañu ne kooku wër na dina génn ci waxtu yi ci topp suñu malade yi nga xam ne ñu ngi leen di toppatoo ci Dakar Touba ak Ziguinchor seen wërgu yaram mu ngi jëm kanam ci bésu tey dalee ko 2 mars bi nga xam ne ci lañu am suñu cas bu njëkk 99 cas déclarés nañ leen positif fii ci Sénégal ci 99 cas yooyu neuf yi wër nañu ba ñibi seen kër 90 ñoo des léegi ci salle d'hospitalisation yi ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi dolli di ñaax askan wi ñu toppatool teg ñu topp tegteel yi nga xam ne ñoom leen leen di jox pour aar seen maa ngi leen di gërëm di leen sant wasalaam